Géejawaay am na benn énergumène bu fa nekk def meeting am ba mu neex ko dajale ay nit meeting ba thème bi du woon dara dul saako loolu rek moo doon thème parce que ñoom nee naa leen bu bu yeewi askan wi amul woon wax dëgg yàlla dinañ jël pot yalwaane parce que du ñu am beneen thème du ñu am beneen sujet du ñu am beneen thème de dissertation ñoom yeewi askan wi rek mooy seen affaire kon su fekkee ni loolu xew Géejawaay bokkul ak les tournées d'un ministre à Kolda bokkul biir comme te loi boobu ñuy évoqué mais loi bi tournée économique la wax donc président la ciblé muy wër naan day doxoon bi di kon monsieur day taxawaay kon nag bu ñu neexoon gën a leen tax ba di xaj di jooy bu ñu neexoon loolu ñu def ñoo leen ko dàq téeméeri yoon te ñun buñ ko defee xorom lay bu ñu ko defee day ànd ak discipline buñ ko defee day ànd ak nañ ko daan defee te ak courage ak di dignité waaye nag ñun dañoo nekk ci suñu biir bopp ak ñoom wax ak ñun suñu kilifa wax ak ñun kon loolu ñu ñaanoon te nga xam ne du sax ñaan lu ñu lu ñu moom la parce que lu ñu moom la ci ñun seen sañ-sañ ci ñun la ñu exercer mooy koo xam ne loo nekk mu nekk ci ak yow lu mu la génne war nga caa mën a génn lu mu la dugal war nga caa mën a dugg d'autant plus que génn nañu ci loolu li ñu génn leen ci ndaxte ëllëg a si biir ñun ñu ngi yore sunu carte loolu nag wolof la c'est pour les initiés te dégg nañ leen déglu nañ leen dégg nañ leen bu baax bu solee yàlla jàmm rek mooy am lii nga xam ni tenir nañ ci compte nit ñi di préparer tabaski yal nañ ko passé ak jàmm ak salaam ñii dem Màkka yal nañu dem ak jàmm dellu seeg jàmm ak salaam ñaanal réew mi jàmm ñu def jàmm kuy bay jàmm yal na nga am jàmm. ki nga xam ne nag bayul jàmm fu mu toll mu ngi tooñ fu mu toll mu ngi agressé fu mu toll mu ngi provoqué dama ni kooku li muy bay na dellu ci moom ak ku ko koy bay de seytaane ku ànd ak seytaane boo déggee mag ñi di ko ñaane. moy ben seytaane bo xam ne nek ci réew mi di buur di bummi di def lu ko neex and ak ño xam ne ay altoppe lañu té duñ ko nit déet buñ ko né taxawal lu lu mu bëgg rek ñu ci ak mom loolu nak yalla suturaal nañu ma leen di gërëm nak yeen bi yi ma leen di gërëm sama bok bopp té yeen ay nit ñu bax ay nit ñu déglu Sénégal ngeen té li Sénégal di riir Sénégal yi am nañ am nañ effectivement raison and ak ndax Sénégal kat fi mu nekk ñun mënatuñ leen a fay loolu moo tax njukkal gii ngeen jox sénégalais yi.